dalal ak si ci PMTV bi dee abonné go ñoo ngi lay ñaan nga abonné bul faté activer sa cloche de notification nga xamante ne ni sa bu ñu video suñu vidéo di nga jot message bu lay wax ne duggal nañu vidéo ci PMTV jërëjëf. at mu jot ñu am xalé yu mokal, ci mokalin bu rafet ki di suñu jarbaat. ñun ñu ñëw fi démb fekk mu commencé tuuti mu roñu tuuti ci kaamil bi liñ fi teewee démb ba tey mu jeexal amul benn baat boo xam ne ni waxal nañ ko ko ci kaamil bi boo xawee arrière saa yoo ko delloo see gannaaw rek mu ñëw dem tari mu rafet waaye itam tari mu méngoog jamono ku ne xam ne alxuraan jamono bi jàng mi nit ñi soxla mooy jàngam tajwid boo xam ne nii day ànd ak maxaarijul xuruuf nga xam ne nii moom la ñëpp di yittewoo yalla dimbalé nako ba daara joju loolu mo fa nek xalé bi non la mokulé tari ko tari mu rafet wax deug yalla loolu dañ ci sante sama nijaay mi ngang daara ji di ci oustaz mi ngi ni momit mo fa newon dem ba tay mom ak euh, sama doomu nijaay bi mom sax mo jité dem ci juma ji ci juma ji ci tisbar bi moy mam biran mom la mom la tuddé bayam mu nek lo xamné lepp sante yalla la quartier bi fi am cieur si dëkkandoor bi ñu dëkkoo bi ñu dëkkoo ak euh, Mouhamed Diaw di Ahmed Diaw léegi nag ñu nañ leen sédd cër boobu mooy ñëw nag ngeen barkeeloog moom ci jumaa ji fii nii lenn ci ay ayat alquran ñaan yàlla mu nekk barke boo xam ne nii dana ci fi suuxat dana nekk loo xam ne dana suuxat ci jàkka ji waaye itam tari mi alxuraan ji nekk ci xale bi yàlla def ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy mbooleem waa quartier bi képp koo xam ne am na doom bi jàng rek yàlla may ko alxuraan moom tamit mu ne woon nag euh, nañu commencé fi nga xam ni moom mooy wala aadiyaat yi euh, bu ko defee ñu barkeeloo ko mu def xat mu bu ko defee ku ci am kàddu jël ko ñu ñaan yàlla tasaaroo loolu daal la waxoon ne nañ ko def incha allah waaw xam naa mën nañoo jox Cheikh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 فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لأب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وأسر ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لقبير سورة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراس المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوس فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة رعادية وأما من قفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سورة التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة الهمذا بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الأطمة وما أدراك ما الأطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميم بإجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سورة القريش بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سورة الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يؤض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بأمد ربك واستغفره إنه كان توابا سورة المصد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته أمالة العتب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 اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا دنياي التي فيها معاشنا وأصلح لنا دنياي التي فيها معادنا واجعل لي آيات زيادة لنا في كل خير واجعل لي موت راعة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرا وخير عملنا خواتما وخير أيامي يوما ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرة غير مز ولا فادح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الصواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وسق الموازين وسق الموازين وأقق إياني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في أمر كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تؤول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تؤول به علينا مصائب الدنيا علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعل وارث منا وجعل سأرنا وجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من هادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من أوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 paree alhamdulilah kon nag imam euh, yëpp yaa ngi noonu xëy na li la ci faatoon rek mooy ne fatiha lañ commencé woon ak moom ba minat jinnati wa naas yàlla dimbali nañu ba mu taruñu kaamil bi niñ ko bëggee woon dégg euh, nañ wax na njàng mi xamuti yàq nekkuñu woon di ko gàgganti Eh, xanaa rek ngeen dolli ñaan ci xale bi yàlla xaar ko ci lépp luy lor eh, te def ko mag ci kanam ñaari waajuram mag mu barkeel nga ñaanal nit ñi rek alhamdulilah alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa nabiyina muhammadin salallahu alayhi wa sallam wa baadu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi gannaaw sant yàlla ak jul si yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay nuyu ñëpp di leen ziyaare di leen wàcce seen wàccuwaay ci nag làmmiñ suñu waajur di bay alaaji lépp lu ñu wax ñu ngi koy waxee ci làmmiñam ànd di ko jéggalu ci kàddu ñu yëkkati ci kanamam ndax du suñu bëgg-bëgg it waaye nag dañ leen ndigal moom du lore kon bu ñu mayee ndigal mën nañ ci sànni ay kàddu yu tuuti rek ñu wax ne ñun tey lañ ñëw démb la ñëw ci guddi gi fekk ñu wàcc ñu xëy ànd ak moom ba nim jeexalee nii waaye même waxuma sax ku fekkee bëgg ak démb ku fekkee lim tari nii rek da nga xam lim tari nii ni mel nii lamplom bu lépp noonu la mel lii lim tari nii léegi nii moo lay xamal ci gannaaw nan la mel kon am na yaqin ne yéen ñëpp kon da am yaqin ne ni mu mel nii sa gannaaw yëpp noonu la rafete kon ñuy ñaan alquran ji sax dàkk ci dënn bi yàlla bari ay kemam ci doomi jullit yi fépp fu daara nekk rek ña fay jàngee yàlla na yàlla yombal alquran ndax moom rek moo ko mën a yombal mu yomb mu ne wala qad yassarna alquran li dikri fa al min mudakkir kon moom ku mu ko jàppandal mu jàppandal ci yow te lii la ngeen lu yàlla la am na ñoo xam ne moom mën na leen fekk ci daara ji yàlla may ko ko nit mën nañu ci dara fekk fu ñu bëri yàlla may la nga mokkal seen kaw loolu nga ne la tax ñu xam ne wa annal fadala bi yadillahi yuti man yasha kon li ngeen la yàlla ko jox ko neex moo ko jox ñu ñaan musa sax dënd bi ñu lu baax ndax jàng alquran li ci nekk li ñu ciy digle ci gàttal ngeen jéggal ma ko amul lu mel ni que moom ndax inna waasu basmala sabiyu fi lmaktabi yuktabu li sabiyi wa walidi sabiyi wa li muallimi sabiyi baraa min naari rabbi yaa laha baraa xale buñ ko bindé bismillahi rahmaani rahim waye bu njëkk ba sin mi la loon ndax basmala da ko tëgg wasnu faala tektal tegtalal ixtisaaril kalaam ndax loolu bu in mali wak wal ixtisaaril kalam siqa munfaridan min al murakkabi basmil in wa ba'd nazala motax mu wax ne wa aysu basmala sabiyu xale buñ ko bindé mu wax ba sin mi mara wala bi dawal na bismillahi rahmaani rahim jéggal nañ xale ba jéggal waajuram jéggal ustaas mi don ko jàngal ndax am lu melni ni ki nii déedéet kon ñu lu baax ci fonk alquran te suñ mag ñëpp lii lañ fonk ñun nag yàlla na toll ndax ku nekk xam ne ba maam Sëriñ Tuubaa di jël xalimaam gu rafet ga naan yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa kunta qablu tabibi alquran muy mbiram xam ngeen ne ba sëriñ ba maam maam Baye Niass jëlee kitaabun jalilun kitaabun min allaahi jalili jalaaluhu wa baaqin laa yaqaafu zawala alquran nga noonu ñoom ñëpp ci lañ jàppoon ñu ñam ci borom miimi ba borom yaa qaisal baxri lil asdaafi xindi asdaafu ala min aljalami lan la wax kafal quran alladi yaxdu bi fusaau allusunu fi lbakkami wa som wa wa wa allusunu fi lbakkami wal baati wa samami mi ne alquran doy na alquran doy na sëkk ndax kuñ naan yaa fasaa ba nga jëna alquran da nga mujj lu da nga mujj tëx da nga mujj gumba ndax alquran mom rek mo fasa kon ñu xamne kon li buñ ci jappé japp nañ ci li ñu wara japp moy bu bu deugër bi na japp ñu ñëpp te gol ci bu baax baax di ñaanal wajurum nak moy ahmad comme ni wa jakk ji bu waxee yaakaar naa la famille lañ ko xamé fami bi yëpp momin ma sha allah góorgóorlu ci jambar la ba dugol doomam bam mu ba yalla moy kuli muy wajuru jigéen wu gor yëpp ñoo leen sant bu baax di gërëm bu baax di jéggalu nak wajur wi ci kaddu yu ñëk ci karam di ñaan nak yalla na yalla bari xale bi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah. Masha'Allah. Alhamdulillah alhamdulilah itam bi ñu fekkee lii itam ñu ngi siy sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala bu baax di wax ne leen mbir moom jàngat day am waaw daanaka ñun noonu lañ ñu yare foog interprétation am waaw waaye interprétation bi yëpp damay delluwaat ca wa isa xuri al quran fastamiu waaw yaakaar naa ne jàng te ñu ni déglu nañ waaye ndax déglu nañ parce que interrogation dafa am suñu borom dafa ne fu ñuy jànge alxuraan nanga nga déglu waaye bu ñu dégloo ba pare ndax déglu nañ waaw walla ndax dégg nañ waaw te nag ah wan moo cay des moo ca des <laughs> foofu laa bëggoon ñëw te nag na inna fi sama samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب نيان لا ها الذين يشكرون الله هياما وهودا وعلى جنوبهم ها ويتفكرون في خلق السماوات والأرض نسوغ أم سنيان ربنا ما خلقت هذا باطلا وكون ñun ndax ñu ngi dégg ñun ñooy borom xel yi suñu borom interroger nañu ne nee na yéen ñi nga xam ne yéenay ulil albab yi yéenay ñi tey matale te di di di di di def seen euh, seen seeni seen i nawaafil di yar seen i doom ci lu mel nii waaye dégg nañ ji ma doon laaj fastamiwu jooju gis nga xale bii dañ ko yar bokkul ci xale yi xew léegi yar sa doom bu génnee fecc mi xew nga tàccu ah ah sa doom bu génnee bu doonee mbandakat kan la yow la bu saagee nga reetaan bu doonee saagakat ci biti kan la yow la waaye bu saagee doo toj kaabaab mais woo ko ne ko saaga baaxul parce que xale xamul dara bu ëllëgee bu ko defaatee nga dóor ko waaye buñ ca paree suñu doom yi ñuy jël di leen yóbbu sa euh, école ba di fay lu cher fii yaakaar naa ne sëriñ bii la mu doon fayeku sax te mënuma sax wax ne fayeku la lan ko doon neexale sax daanaka du dara waaye xale bi lii mu wàcc fii tey sëriñ bi wax ko léegi tey benn benn benn baawul basmala rek bu mu wax euh, ban ngëneel la ci sëñ Mouhamed jaw male am ban ngëneel la ci am moo tax nañu nañu fastamiwu ji fi ma koy indi mooy xale bi daf ñu cax mooy nañu jël suñuy doom ñu dugal leen ci daara yi nañu delluwaat ci daara yi nañu jël suñuy doom investir leen ci daara ji te lii dafa mel ni dafa indi conclusion ci suñu réunion bi passé waaw ndax man lépp lu may wax rek dama bëgg muy am jeexital suñu réunion bi passé dama leen wax pour forcer ne fii ñun cité da baax La Rochette suñu daara ji dafa sooxe dafa sooxe trop te li ko sooxe mooy nan la caaxaan baaxul jàng arab ñaari bu école tijjee nga tëj daara ja waaye suñuy doom lu ñuy xam kii mooy fierté kañ koñ bi tey kii li mu wàcc ci koñ bi wax naa ko léegi ci ba muy commencé law anzalna hazal quran ban ko wàccee sa doj doji doj al quran doj yi antanuñ ko mais tey kii lii mu wàcc fii da wàcc ko ci quartier bi quartier bi da ko antan benn xéewal bu ci suñu borom subhanahu wa taala def rek ñun waa quartier bi yëpp mën nañ ci jariñu kon nañu delluwaat ci li nga xam ne mooy li sëñ jaw mii def yàlla xam na ne man tey jii j'ai le cœur plein sëñ Diaw gën naa la naw ndax man nga am am nga lu gars yi di fayee ci école yu chères yi am nga ko man nga ko waaye ñun jullit yi xam nga lan moo ñu yàq complexe ak topp ak toppandoo ñun dañu complexe dañu xeeb suñu bopp tey balaa ñoo am lu ñu neex suñuy doom naan ah si si ah non te loolu teguwul fen yóbbuwuñu fen kenn doo fi génne àddina ñu ne sa doom ja nekkoon soraanoo na ñëw feccal ko ndax yàlla jéggal ko wal iyaazu billah kenn sa doom doo fi génne àddina son ñu ne sa doom ja nekkoon sa université ba na ñëw euh, defal ko benn euh, sujet dissertation wala leneen pour yàlla jéggal ko lan la ñuy wax rajulu saalix moo fii ne mooy doom ji nga jàngal alxuraan bàyyi ka fi moo lay moo lay moo lay taxaw mu taxaw mu taxaw si si biir kër gi naan bismillahi rahmaani rahim yaasin muy mu la mu lay fekk fa nga të fa nga fa nga tëdd wala teen boo gasoon nit di ca ñu sey kii wala garab goo saxaloon wala wala wala yiw bu baax waa teewuñu kon balaa waay waay balaa ñoo dem di wuy ji suñu borom du ñu préparer suñu doom yi ci lii lii fierté la neex na lool te lii sagu koñ bi la xale bi ñu ngi koy ñaanal yàlla allahuma laa adurru waxta euh, fasaaxa bi leer na nañ di sant sëriñ bi di ko sant lool nag sant bu bu am euh, bu am euh, commencement waaye amul jeexital di sant baayam way juram way juram bii sëñ Diaw sëñ Diaw naw naa la lool lool lool lool te lii fierté nga itam si quartier bi te wax naa ko si sama njëlbeenu wax mooy sëñ Diaw ñun daa fii rek lan ko xamee jàkka ji waaw liggéey jàkka ji liggéey jàkka ji te ñun foofu lañ ko xam te kooku mooy rijaalullah rijaalullah mooy ki nga xam ne mooy ki nga xam ne dafay xëy di uti lu mu am pour njabootam bu fa jógee itam mu ngay uti ay yiw sa jàkka ji mais toog naan man rijaal laak yoolu doo rijaal gars yi nañu delluwaat ci daara ji ñu xool te bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu kii rek bu ñu topp rek alxuraan ji neex na de ma fa tabaarakallaahu fasaaxa bi neex na fa tabaarakallaahu mais ñu uti la nekk ca biir ndax mu mën ñoo jariñ aayaat yii suñu borom subhanahu wa taala indi daf ko indi pour ñun ñu defaru ci war nañ ci defaru ba nit waratul sonn Sénégal war nañ ci defaru ba nit waratul xiif Sénégal war nañ ci defaru defaru ba nit waratul toog ak moroomu jillitam di ko wax lu ñaaw war nañ ci defaru war nañ ci defaru war nañ ci defaru ba borom kër du joteeg soxnam war nañ ci defaru ba mag ak rakk du ñu jote war si defaru ba jur ak doom yërmande di tàbbi seen biir bu ko defee euh, loolu ñu ngi siy sant bu baax a baax a baax a baax di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla nangul di leen wax ne cadeau bi ngeen ñu indil fier nañ ci lool ndax ñun problème sax daara lañ am bu ñu mënoon sax mu tàmbalil xale yi fii mu toll nii ñu jox la sas euh, sëñ bi nu mu ti hein cheikh macha allah sëñ cheikh mu tàmbalil xale yi fii mu toll nii ñu commencé di jàng fii daara mooy lépp manu dëkk Sénégal mënul dox te daara ji doxul maam Serigne Touba lu mu doxale daara te lan la daf daf ko fonk ne waxuñu la ne da daan jàngale bu guddi wala mu jël ay téereem jàng bu guddi jël téere teg ca kaw lal ba moom mu tëdd si suuf. kazalika maam euh, kii mi nga ña mi nga wax kii maam Ablaye Niass mi nga wax noonu kazalika maam euh, Seydi Hadji Malick ba nga wax noonu. waa ñun lu tax mënuñoo mel noonu pourtant seen doom yi ñoo ñu jiite si entreprise yi tey. gën ñoo mën a wax ci tubaab gën ñoo mën a wax anglais waaye gën ñoo doon ay niti daara kon daara ci la lépp nekk ci la lépp nekk waay waay euh, chef de quartier yow mi nga kii tey dama lay indexé bu baax daaray koñ bi na dox koñ bu toy nii cité Dabakh La Rochette di am daara joo xam ne ñaari weer rek lay dox man loolu fu ma toog dama koy mettitlu ndax ñun dañu juddu si daara sonn ci lool parce que ñun ñoo dàqoon jàng xale yi dan doon jàngi école suba ngoon bu ñu daan jàngi double amul won journée continue amul won da ngay jangi 8 h wàcc midi euh wat 3 h wa 3 euh, h wàcc 5 h mais bo jangé école wàcc da ngay teg sa saak dugal sa daara ja boo demee sax maîtresse balay jangal ñewul bo ñewé do tok ci kër gi ci dara ji nga jup xalé yi dañ ñoo dakh jang tay bu xalé yi dawal auto ñun dawalu ñuy auto bu xalé yi amé kër amuñu kër bu am bu ñu amee laneen amuñu ko kon lan la. daara ku fay jàng da ngay tardé suñu mbokku jigéen yi ngeen gën si ñaax borom kër yi parce que al umu madrasat al umu madrasatun yaay mooy mu yaay mooy école d'abord mooy seen borom kër yi xiir leen seen seen kii da ngay gis ku sa doom xëy di jàngi arab nga ne ko ah demal doo ko sax solal sol bu baax wala doo ko kii ah solal ko lu ñàkk xorom oustaz bay laaj àllar bay ñaar fukk nga ne seen oustaz bi daa mën a laaj ah bu ñuy fay mille francs bu ñu bu ñu laajee mille francs ci daara ji ñu ne noo 2000 francs bari na nan fay mille francs te école lan la ñuy fay école da ngay inscrire ay 25000 francs ah di fay xaalis bu bari balaa balaa balaa balaa at may jeex te daara jii ñu in ñaan si kon kon ana suñu jullit est-ce suñu jullit ñun est-ce que ñun réellement réellement bëgg nañ daara est-ce que réellement bëgg nañ alxuraan nan ci gën a nan ci gën a bàyyi xel. bu ko defee ñu bañ a guddal di sant suñu wayjur bi yaakaar naa daje nañ fii si tudd euh, sëñ jaw daje nan fi ñaari yoon di nga wax ne taxawaay bi nga taxawu njaboot gi yal na yàlla barkel yal na yàlla gën guddal fan bi ba nga yàgg di ñu gunge suñu bokk yi itam euh, xam naa ne moom saalum saalum ku ko wax rek wax alquran waaw ndax ñu naax yéen euh, xam naa ne bari naa si ñu ma ñu ma si jaxasool waaye xam naa ne ay nitu diine dëggalan te ay nitu kii te liggéey rek lañu xam waaw bari naa si itam ñoo xam ne ñu ngi séq liggéey euh, sëñ Jaw ma xam na ci dara euh, waaye xam naa ne ay liggéeykat lan ay liggéeykat lan bu ko defee lii itam ñu si ñaan rek yal na yàlla barkeel lépp te lii itam dafa neex lii euh, sang bi wax fi mu commencé ne way juróom moo yoroon daara ji génne àddina moom mu nekk fa loolu fierté la waaw loolu fierté la yàlla na yàlla barkel bu baakha baakha baax bu ko defee xam naa ne dañuy bokk rek ñaanal sëñ sëñ cheikh mi ñu bokk jàng fatiha ayatu kursi l'ikhlas wala xeex na salatu ala nabi def ko aadi yonente bi li nga wax ci jigéen moom mii de yaayam ñoo bokk bàyyi ma mu jàng ci papam papa moo ko doon jàngal mu jàng ba tari ittoo xam-xam ci téere yu bari mu jàng imam mais da koy woo téléphone fa mu nekk mu ngi saalum moom moom ngi fii whatsapp mu di ko jox dars ba léegi nii da ittewu di jokk ko baram ay boromi xam-xam pour di jël ay dars danaa bu dare daa daa suma dara pap avant muy sëyi ab diir ñun nekkuñu fa boobu moo fa nekk yor yore yore ay classe di jàngale yaay wax dëgg yàlla jàmbaar trop la ba tasaaroo itam wàll ñi nga xam ne ni ñoom la nekk ci kër gi nag. mooy uju yu nekk ak ñoom tamit. kenn ku nekk si ñoom doomam yàlla na xam bis bu mel nii moom lépp di xéwaloon loolu laa a yeggale li nga wax itam xam naa am nga mébét pour koñ bi ñaax itam ndaw ñi kilifa gu mag dafa wax ne al kulli watan innama yatawaqafu ala shababihi bal la bal la kulli shababin ñu ne ko ban sabab la mu ne asababul muthaqafin ذوي الأخلاق الحميدة والهمم العالية mu ne kii bu nekk dëkk bu nekk seen mustaqbal mooy avenir nee na ma nga sukkandiku nag ca seen ay ndaw mu ne waaye du n'importe quel ndaw n'importe quel ndaw ñu ne ko yan ndaw la mu ne as sababul muthaqafin mooy ndaw yi nga xam ne dañuy am culture as thaqafa thaqafa boo kon firi nag mooy fànn bu ne nga am loo ca xam bokkut ak xam-xam al mooy fànn bu ne nga xam lépp waaye saqafa mooy danga nga fexe itam ba fànn bu ne nga am loo xam mu ne ndaw ñooñu lañ soxla ñooy avenir dëkk bu ne waaye itam ñu xam nekk ay ndaw yoo xam ne am ay jikko yoo xam ne itam yu ñu sant la yaru ci diine màgg ca di ko dund waaye itam am yitte yu kawe itam ba lépp loo xam ne nii lu jëm ci mbiram àdduna la nga fexe ca ba am ca yaddu loolu ya dégg nga ku ne xam na ne ngañ maître ngañ Demba koo xam ci politique bi rakkam moom mii lañ ko tuddee mu ci daara ji itam waaw daara dafa la moom a gërëm waaye am sama nijaay dañ jaw dañ ko tuddee moom mii moom moo ko alxuraan jàng ci xam-xam lu mu ci jàng dem ci côté français bi gis nga am la fa am ci ay diplôme ba tey mu nekk DG kon li nga wax noonu laay confirmé ndaw ñi rek la ñuy ñaax ci loolu di sant di gërëm bu baax alhamdulilah ne yaay borom dëkk mu ne nga nga nga nga tëjal leen ndax yaay kilifa jox <laughs> dañ bëggoon barkeelu ci suñu sëñ bu mag bi waaw waaw si sëñ jaw waaw ndax euh, bés bu ne ku bëgg item bëgg jàkk ji la waxtu wu ne fi la koy jullee li itam loolu itam nañ ko ko seedal waaw waaw itam kursi lixlaas fa la xeex naa salaatu ala nabi def ko aaju ñaan yàlla xale bi li mu jàng yàlla na ko yàlla def yiw yàlla na yàlla euh, yaatal dënn bi def ko boroom xam-xam waaye bu ko defee borom xam-xam itam yàlla na doon borom xam-xam bi jëfe yàlla soril ka ak seytaan musiba ak balaak déggu ñaw ak euh, mboolem jullit bi jaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu noppee rek ñu jox sang bi itam mu tëjal ñu euh, ñu barkeelu ci itam bismillah